waaw euh, Lirou Diane kon Tektal TV seenu diaspora bi la seenu àddina bi la. waaw Lirou Diane champion bu mag bi yaa ngi ci biir Tektal TV. Cheikh maa ngi lay ziar. ngi lay dolli ziar Cheikh. waaw Tektal TV. Mhm. xam nga fan laa ko xamee. waaw maa toog ba Amérique ñu naan ma Tektal TV Tektal TV Tektal TV waaye waaye luy TV. lu ma tàppe gis la. ma ne waaye Cheikh Talif kii maa ko xam ci Talif yaa ko xamee woon fa laa xamee Tektal TV. Mhm. ñoo ngi leen di suivre nag. Mhm. diaspora baa ngi leen di suivre du Cheikh. leen. et puis man seex man xam naa ne ndaanaan nga te seex xam naa ne doo como seex xam naa ne doo suure seex doo jël sëriñ bu munul dara xalaatuñ ko de dëgg rek la xam de non je connais boy je connais très bien seex Talif doo jël sëriñu cuune di ko wane sa caméra bi ci Tektal TV bañ ñoo ba nga ne ko Tektal TV euh, Tektal TV euh, kuréer kuréer mooy Tektal TV kuréer nga gindi ko te yow doo jël kuréer ñu ngi sëriñ ñu ngi lay wane sa site bi yëpp tubaarikàlla macha allah. yàlla nga doon roi des arènes. amiin yaa rabbana. yàlla yàlla ko Balla Gaye doon. yàlla ko Balla Gaye doon waaw xam nga loolu dafa weesoo nag. non nekk seex. Ah, ñoom Xaadim Njaay ñoom may seen roi de moom waaye seex. Ah. yàlla na yàlla defal jàmm. seex sa site sa site bi li ma la ci ñaanal ci mm. Tektal TV ca kaw ca kanam yàlla na doone ay teelay teelay te te gars yi abonné leen Tektal TV mm. te Cheikh mi xam nga lu ma neex ci dafa am jom am fulla am fayda Cheikh bi ma ko xamee du tey ci daal fi laa ko xamee woon non non non du saytaane ndax Tektal TV ku fa nekk doo doon saytaane mm. waaw te ndax Tektal TV mais da bëgg moo seytaane lu war a loolu moo saytaane dafa am journaliste yoo xam ne dañoo saytaane. waaw moo tax ma ne saytaane yow mi tey soo nekkoon saytaane dama naan la saytaane nga. waaye xëy na nekkutoo saytaane. man damay wax on se bilaa monsieur Dante ji. da ngay dàq saytaane. moo tax doo saytaane. Mm. ba pare jël ñoo xam ne. dañuy dàq saytaane. Mm. di ko teg sa caméra bi. parce que Afrique lan nekk de di tubaab tubaab lu ba sànku. waaw Afrique lan nekk de. di leen jóg seen bopp. waaw te xam ne njëriñ ci ne sangu. waaw di sangu di takku. ci la bokk di suuru di diw di suuru. Mm. waaye Tektal TV. yóbbu sa ñu la yóbbu. ah yow nag man seex li moo ma neex ci yow xam nga yow daal tubaarikàlla masal <laughs> yàlla na la yàlla defal jàmm sa site bi daal na dem ca kaw a kaw a Tektal TV man xam lu ma neex hmm. diaspora bi yëpp dañ ko xamee est-ce waa Sénégal xamee nañ ko noonu waa Afrique bi xamee nañ ko noonu Tektal TV seen bi diaspora bi la ah kon waa diaspora bi ñoo ko waaye nag bi ñëpp amoon nañu ne Tektal TV ay eh, Tektal eh, seex yow daal seex ci kaw ci kanam yow amal jàmm rek loolu yaa maa lay suivre de hmm. maa dem Amérique ñu ama Tektal TV Tektal TV. Hmm. Tektal TV Tektal TV. Hmm. kon nag Tektal TV. non Tektal TV dina dugg fépp. wala lépp incha allah.